salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen balu xaq ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jégal xadiisu tey bi dafay wax an abdillahi bni mas'ud radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man dalla ala xayrin falahu mislu ajri faacilih saxiixul muslim xadiis bi ki ko nettali mooy abdullahi bni mas'ud radiallahu anhu وخنا ينتبي صلى الله عليه وسلم فوخنا كيف كو تكتلي لو باخ انا نعم، بو تكتلي نيت لو باخ لو ما تي جيف يوغا نغا ام لو ني تول تي لو باخ لولا حديث من صحيح البخاري انا نعم، بو ديغلي نيت مو داف لو باخ بو ديفه لولا مثلا غانيكو نياري ركاي فجر خير من الدنيا وما فيها تخمكو moo gën ci àdduna ak li ci biir ba mu tàmbalee julli ñaar rakkay fajar tuyaaba bu mu ci am yow danga ci am bu doy wala nga ni ko jug naa guddi de la ca nekk cay ngëneel ba mu tàmbalee di ko def tuyaaba bu mu ci am yow nga am lu ñu ñu toll moo tax ak tabliixul la mu jàllale message ab jullit ba mu tàyyi di joxe di jàllale ba mu tàyyi bu mu tàyyi ndax xamul ban ban laxda la ko yàlla di nangul mën na am ci ci benn barab boo xam ne jàll na fa lu ndaw rek na yàlla jaare fa jéggal ko nangul ko mbooleem jéggal ko mbooleem ci ay bakkaaram loolu tax doorxe ci doon yoonu aljanam moo tax at tadlilu di def te dullu ala alal xayri lu am solo la di tegtale lu baax moo xam ci wàllu diine moo xam ci am e, fe jafe-jafe wér-gu-yaram nga tegtal ko ne ko garab nangam boo ko defee nangam nangam la fe bu ko defee bu ci jëlee tan yow da nga ci am tiyaabu bu rëy a rëy wiyiɓe xeetu tegtale lu baax la xayru lu yaatu la waaw bu loolu loo loolu li lislaam di doxe jullit dañu war a dund ak ak ak social ak solidarité di jàppalante di mottalante di nga def li nga xamante ni moom wax échanger maanaam di bokkoo bañuy garder li nga garder rek te sa ruux jàpp sa ñàmbur bu amee xam-xam bokkoo nit ñi boo amee wërsëg noonu leneen loo am loo leen dimbali xel ak yooyu yëpp loo ci jox ne rek mu jëriñoo ko yool woowu yàlla dana dana ci wàll ni yàlla boole ñu nangul te jëgal ñu yaay sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aanana allah wa iyaakum ala taatihi bi ridah wa yassara lana bi yusra qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu